dalee na jàmm ci seen revue de presse article 87 bu juróon coow ni ki démb ca assemblée national ñu gis ne député yi nekk ci opposition bi kenn ci ñoom d'accordul ngir voter boobule loi ci loolu gis nañu ay député ñu bokk ci nguur gi di côté benn bokk yaakaar ñoom tamit ñu daal di wax ak seen président dinaan gisaguñu lu war a mën a tax ñuy voter loi boobu ginnaaw bu ñu dégloo sénégalais yi ci loolu Macky Sall mën nañoo jàpp ne ba fi mu nekk daal na di bàyyi loi 87 boobu nga xam ne doon na ko may mu mën a tasaare assemblée nationale maanaam mu tas ko saay su ko neexee loolu nag gis nañu ne député yi nekk ci opposition bi mayuñu ko ko benn yoon kenn ci ñoom nanguwul woon voté boobule wax mu juróon ab coow ju mag waaye nag ba fi mu toll mën nañ jàpp ne article 87 boobu yi dal di ko teg ci suuf laaj bi mooy ndax Macky Sall dafa dellu ginnaaw ndax ay pression yuñ koy teg député yi nag daal nañ di leen convoqué en séance plénière alxames gu ñu jëm bu 9 jotee li ñuy waxtaanee nag mooy ñaari projet de loi yi nga xam ne war nañ ko voté di loi numéro 10 2023 ak loi numéro 11 2023 yooyu le loi nag ministre de la justice kii di Ismaïla Madior Diouf ne moom pare na ngir défendre yooyu le loi ci kanamu ay ñoñam. démb ginnaaw bu ñu jógee ca assemblée nationale ba ñoom député yow askan wi ñu daal di woote ab conférence de presse ci loolu kii di Guy mari Sagna daal di dénoncé ni ñu jàppee kii di Birame Souleye Diop di naan teguñu ko ci yoon benn yoon ndaxte en tant que député balaa ñuy def dara ci moom warul def rek ñu teye ko dañ ko war a may ndaxte am na malaanu kiirlaay du heure bu leen neex ñu jàpp ko heure bu leen neex ñu bàyyi ko loolu moo nekkoon lu Guy Marius mu koy defee à chaque fois bu ñu jàppee kenn ci ñoom ñu gis tamit ne kii di El Malick Ndiaye am na retour de parquet ginnaaw bi ñu ko defeeree woon Dakar altine démb moom nag ñu ngi ko arrêté woon ci dimanche bi placé woon ko en garde à vue doon ko déglu ngir ay enquête moom nag li ñu koy toppee mooy ay audio yoo xam ne mu ngi ciy woote ay violence moom El Malick Ndiaye mu ngi weddi yooyu lay audio di naan du moom moo ko def Air Sénégal démb ginnaaw bu mu amaloon ab jàkkarloo ak taskatu xibaar yi ñu def ab bilan moom directeur général ba ba dara Fall ak kii di directeur commercial bi daal nañ di waxtaan ci doxalinu Air Sénégal bi ak li nga xam ne jot nañ ko réaliser si loolu ñuy xamle ne ñu ngi am ay perte maanaam ñu ngi ñàkk weer wu nekk lu tolloo 6 ba 7 milliards de francs CFA. coordination des musulmans du Sénégal waa CMS ñoom nag ñu ngi firndeel ne feetu tabaski ñu ngi ko war a amal aljuma 28 juillet 2023 ñuy xamle ne ginnaaw bu ñu déggante ak seeni naataango ñu nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñoom nag ñu leen di xamal ne gisuñu benn yoon weer bi waaye ñoom coordination des musulmans du Sénégal jàpp nañu ne ba suum aljuma 28 juillet la ñu war a amal feetu tamxarit ñu xaar beneen commission bi ba xam moom ban date lay jàpp comme nuñ koy defee à chaque fois ñu gis ne ñoom commission yi duñu mës a juboo ci ay bés yi nga xam ne war nañ cee amal ay feetu jullit ci côte marocaine yi nag ñu ngi signalé ab naufrage bu fa am maanaam ab bateau gu fa suux bateau bi ñuy xamle ne mu ngi jóge ca Saint-Louis ci boobule naufrage ñuy xamle ne am na juróom-ñetti ndaw yu ci ñàkk seen bakkan yoo xam ne ñu ngi dëkk ca Rufisque démb ca palais de la république ñu gis ne kii di ministre des sports Amadou Ba daal di jox suñu gaynde yu jigéen ñi seeni drapeau ngir ñu dem ngir ñu dem ci jongante afro basket bi ñu war a amal le 28 juillet ba le 5 août 2023 ci loolu Amadou Ba di leen ñaaxaat di leen xamal ne war nañoo mën a indi ndam li fii ci Sénégal jongante boobu nag suñu gaynde yi ñu ngi koy amal Kigali ca Rwanda ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di leen jox dig daje jërë ngeen jëf